asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo sunu seen bu bees bi di Wade TV piir ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal tey nag ñoo ngi leen indil secret si wàllu ñaan yu am solo lool muy mbirum noob ki xamante ni dafa am ku muy bëgganteel muy ku góor ki wala mu kuy jigéen ki mu jafe ko lool ñu indi la tey benn secret bu ci am njariñ lool bu am doole sax macha allah secret bi mi ngi dox ci wàllu. ñaar ñuy bëggante nii ñu la wane xaatim bi noonu nga koy binde soo koy liggéey soo ko bindee ba mu yegg yow mi xam ne yow yaa bëgg nga bind sa tur si digg bi si bunt bi si digg bi nga bind ci sa tur sa tur ne ci kaw ki nga bëgg mu mu topp la nga bind turam ci suuf boo paree nga wut butéel bu set nga def si ndox mu sell jël xaatim bi lem ko ba mu jekk sol ko si biir butéel bi nga gas foo xamante nii day tooy noor di tooy nawet nga suul ko fa incha allahu ki nga bëgg mu topp la dina la topp incha allah ni nga ko bëgg bu dee sëy ngay sàkku si moom yàlla na yàlla yombalal leen ko ca def si barke ñoo ngi leen di jaajëfal nag ngeen continuer di wéy di abonné ca di partage vidéo yi